docteur yi ma ne clinique yi bari na de clinique yi bari na lool lool lool ku moom clinique yi yéen docteur yi yéen a ko moom dañ leen a fay ngir ngeen liggéeyal nit ñi ngeen wàññee ko berse di clinique di fayu nit ñi loo xam ne mënuñ koo am boo demee ci boo demee ci ci ci ci hôpital ba ñu jox la rendez-vous boo xam ne bi boo xaa boo xaaree rendez bi dee nga dem ci clinique ba booy xaar rendez bi di te ñoom ñoo fa ne daan lay joxoñ seen clinique rek boo demee fay analyse yaa ngi bëgg rey nit ñi rajo yaa ngi bëgg rey nit ñi yëf yaa bala bala nga bala balañ laa faj dañ li li nga amoon dañ koy jël ba mu jeex takk ba dootoo am loo fajoo ñu door a jublu sa mbir bu ko defee dee rek ngay dem soo munta soo munta soo munta jote ci ñoom nga dem fekk leen seeni clinique fay leen loolu góor gouvernement bi war wax nag nit ñaa ngi bëgg a dee amatuñ fañ fañ fajoo amatuñ luñ fajoo amatuñ ku leen faj te li ma wax de gouvernement war na ci xel de ba dama am ak hôpital principal bi ma dañ ma dañ maa wax ne bala nga dugg da nga joxe téeméeri junni yoo xam koy teg fii moom ma génn téeméeri ba fa aspirine joxuñ ci <laughs> lekk ki Euh, maam Thierno maam Thierno maam Thierno Dieng mi nga xam ne mooy directeur yi ma ne ah naa woo ma euh, directeur bi waaye ndax comme maa ngi fii ci biir daal man fay naa ba pare naa ko woo mais gis nga ba ma ko wooyee ba jot ko ne ko maam Thierno ànd foo nekk mu ne ma kii man ne euh, xaw ma bis ma ne ko waaw ah, man dama laa bëggoon a ngi hôpital sax waaye xam lu ma ci teg ba waxee ba ne ko waaw ah, kañ laa lay mën a gis mu ne ma pet mu ne ma peut <laughs> xam ne ginnaaw man lay wax lii naka nag ak ku néew doole koo xam ne ki yow mënoo dugg foofu boo demee yow noo def doo dee peut-être yow ñu teg la fi ngir nga war a dimbale doomu aadama yi nga ne ci bureau ku ne ci biir hôpital bëgg laa gis xamoo mu lay doyee ah nga naan ko peut-être may leen gis ngeen ko nii de ku ngeen ci yaakaar ba defee ne yéen la fi nekkal nekkul leen seen bopp leen nekkal kon nañu xoolaat yëf yi xam ne yoon wi ñu jaar baaxut wii du jëme senegal kanam da koy delloo gannaaw rek journaliste yi xoolaat leen seen bopp waay jaxase gi bari na lool tappale yi bari na lool xabaar yi wéru yi bari na lool in jaakum fasiqun bi ba in fatabayyanu an tusibu xawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum naadimin yow xabaar buñ la jox yéen yi lañu sukkandikoo defe ne yéen ngi wax dëgg xabaar buñ la jox boo ko toppee ba ci biir xabaar ba du doon dëgg ab intérêt ca nekk boo xam ne bii moom ngay daw ci biir ba tax nga jaxase doomu aadama yi ba ñëpp nekk ci nekk ci fitna te leen ko teg yow journaliste kon journaliste nañ xoolaat li ñuy wax xabaar yi ñuy joxe kat boo ko toppee ba ci biir da ngay dem ba yàgg nga xam ne ñii kat mérétoo wuñ métier mu tedd mii mérétoo wuñ ko de parce que wax ji moom li ci ëpp boo ko toppee ñu néew la ci wax dëgg ñu ci bari seen intérêt la ñuy wax nëbbu ko ci biir nag bala nga koo xam dugg ba ci biir kon journaliste nañ xoolaat seen bopp xoolaat doxin wi xolaat ni ñi joxe xabar yi tey di wax dëgg te yàlla tax parce que ñoom bu ñu bu njàqee rek aduna tukki ndax li ñuy wax nit ñi dañ koy gëm te buñ ko gëmee dañ ci sukkandiku te buñ ci sukkandiku dem ba ci biir dara du ci doon dëgg kon nañu xolaat seen bopp xol ñi joxe xalaat xabar yi ñi nekk ci internet bi dañ xolaat seen bopp nit wax yi waxam ba noppi nga seet ndiggante sa la ca neex nga ne ko kettet daal di koy publier yàqal ko addunaam te fekk li ngay wax dara du ci dëgg tegoo mbir ma loolu mën naa xool nag te fi ne fi mu ne saa boo demee ci internet bi dangay gis wax joo xam ne ji wax ja da dañuy seet la ci neex rek ñu ñu kippi ko noonu rek yow publi publier ko daa daa daal la ko yónnee su ko defee nga naan dégg la di wax waay te fekk boo déglu woon la di wax safaan bala loolu nag loolu nag lu mat a bàyyi xel la kon xolaat leen seen métier bi lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 boo bëggee liggéey bu xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc